gidi fof nana ko jomiraɗo ko ɗum dekoral dekoral dekoral dekoral ndaw ñi ñoom sax sax nga ko ci parce que jaamu ci na sere bi sere ka nga def naa waaw man yaakaar naa ne xam naa ne gars la sargal Fallou Ndiaye def ko Yaxya lan la yëgee. kontaan di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm Fallou aw xaw ma lan laay wax xaw ma it naka laa koy def. bu ma xamoon baax ban laa war a wax pour remercier ko laa ko mais malheureusement euh, xaw ma lan laa war a wax. vraiment kontaan naa ko ba sedd na. yàgg naa ci làmb. yàgg nañ maa teral waaye lii ngay def. ki ko def di doomi boppam dëkk boppam yow ngay doomi si nag saa Fall nga defee mel ni tey mel ni ko du soxla ko wax ko wax mais yaakaar naa ne Fall boo ko gisee tamit ci seetlu bi ñuy doxee mu mel ni yow it kon Fall daa mel ni toujours parce que dañu mel ni seetlu. waaw juum c'est le contraire Fall lii dama ko laal xam naa ko en tant que promoteur Souleymane Thiam. léegi boo tax ma ne la yàgg naa ci làmb am naa ci décoration bu ne mais bii daf ma ne parce que dafa bett diggante bi ñu ko xalaatee def ko gëstu naa ci moom tuuti am ci seede rafet maa koy wax démb ba ak Max Vergara xëy na tey duñ ko mën a wax. bi muy passé dañu toog maag Fatou dina xam ne boole naa ko ci suba ji parce que nag la bu ma ji teraanga lañ ko delloo vraiment kontaan na nga ko jox waat waatoon naa ci yàlla ne après koor gi rek laay dem ci moo tax lii mooy suma première sortie Fata production si yaa ko jiite muy si tëgg ay làmb ñu gis la daaw nga def doy waar ma dégg na yaa ngi waaj ñaax loolu kañ la ñu ngi def euh, six programmes après koor bi ñaaxal la ñu ubbee Joal maîtrise wu ma la programme bi ma taxaw mais ñaaxal la ñu ubbee seer bi nga jox Fall nu mu tudd pour lan la waaw loolu Fall laa ci wax <laughs>